mbokku téléspectateurs yi sant yàlla di Seydina Mohamed sallallahu alayhi wasallam mbokk yi di ziar ñëpp di gërëm ñëpp mbokk yi nag dañoo fekk dafa fekk ni maanaam ci fin saison bi ci la ñu nekk ñuy jégalu ñëpp baat yi nga xam dañ ko fay wax mu nuroog lu neexul doomu aadama lu neexul téléspectateur di jégalu baat yooyu mbokk yi di ñaan yàlla Sénégal yàlla def fi jàmm ci barke yonent bi Nak dama wax ni senegal ben bopp la kenn mënu koo xar ñaar tay ji ñoo ngi fi ci estade bi nga xamni moy estade stade Demba ci diggante Thiat Boy Bambara ak ki nga xamni moy Modou ant ak ki nga xamanteni bi muy muy grand combat ak kan ak ki nga xamanteni bi moy Forza ak ki nga xamni nak moy ci deug deug moy super étoile mbokk yi mu nek ay combat yo xamni ni rek dafa doyon ci saison reine bi waye lit Nicolas Enko, Teguko, and ci TFM mu nek lu russe tay nek sen télévision LCS la scène sénégalaise ñuy gëreum di sante ñi nga xamanteni bi ñoy ñooy seetaan LCS mooy téléspectateur yépp walu jël bi waye mbokk ñi gëreum gërëm Bourama Niang ci Kër Massar docteur malik sen ci amo di gëreum madame Kiné sen di nit ku yalla baxal di ñaan yalla guddal fanam waye duñu faté ki nga xamni ni deug deug mooy Aji Diop nekk grand commerçante nekk Sandaga monsieur Delem Konda ak di ñaan yàlla guddal fanam Moustapha Mbeng maire Nelson Mandela Kër Massar ñu ngi koy gërëm Papis Diop Momar Soxna di gërëm nag Chérif Mouhamadul Ali Aydara di Chérif di sëtu yonent bi ah di def ci Sénégal lu baax di def ci Sénégal social ci jumaa ya ci jàkka ya ca machine wala yaag soq ya kooku mooy Chérif Mouhamadul Ali Aydara di ñaan yàlla guddal fanam ci barke yonent bi mbokk yi di gërëm ñëpp di balu ak ñëpp di baal ñu ak ñëpp Coro Fall ca Ndéla ca Kam ca parcelle euh, ca fi nga xam ne mooy Kër Massar mbokk yi duñ def lu seetaan combat préliminaire yi su ko defee ñu won leen li nga xam nag mooy grand combat ak Pape Birima Thiam Dogo mbokk yi à suivre LCS la profito ñoom ñaar belende dugg def dugu def ak belende ña nga dafa tay baram tek belende sani na belende dugu def ñi ngi leto ñoom ñaar dugg def ngi bëgg dem dugg belende arrêté nako dugg def ak belende da ngay dorante da ngay dorante ma koy dor belende koy dor belende dugg def ya xex wax faxat nako way way tok na tok na ay ay doole taxul jamm doole doxul jàmm da ko ah nee na ngeen noppi de nee na ngeen noppi la signor yi bëgg a dem Boy Sine ña ñoom ñaar Boy Sine sànni la signor daw na jël ko Boy Sine euh, jël na ko kalba kalba dana la kalba kalba kalba kalba kalba kalba kalba kalba laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah Boy Sine daan na la signor loko dulu jubalees ndeysaan Boy Sine Franc ak Reum Franc jël na Reum si jël na tànk Franc Reum si na jàppante ñaar Reum si takk na Reum ay takk ba takk ba takk ba takk ah Franc ak Reum si waaw waaw dina kal dina kal de waaw waaw waaw waaw rëy ay waay Franc waay ndeysaan Franc ak Pape Maguette Ba sax waaye pako Jackson Thiam garmi la torodo Pape Mayel Diop kaay may ma nag ak meew Pape Mayel Diop urus ngay wàlle waaye ngalam ngay bat no Pape Mayel lay woo ay waay samba yaa ndi nga mbar doole mbar maa ngi ci géew bi ku jur sa doom tere ko aar ko géew nga bu la lo Abdul Aziz gay ci am sa ko di combat bi pare comme ni sunu combat rek ñaan may comme lum la jaral bari na waaw ñaan yàlla préparé nga bëréew a xeex lépp préparé nañ ko lépp luy may ndam def nañ ko yàlla des ñu ngi ko koy ñaan mu may ñu ko do ziar nuyu no préparé ko waaw combat préparé ko ñu ñëw préparé nañ combat rek di ñaan yàlla may amiin amiin amiin la champion préparé ci xeex ak bëre waaw lépp laa pare lépp laa ni bàyyi ma dara may ne lamb ji soo ko daane fi lay waaw bu baax a baax xam naa ko bu baax moo dama jël ko xam naa ko bu baax lan waaw lépp la ma jaral lepp luma jaral. wa comme ni ñu doon préparé suñu yeneen ko yi passé rek entraîné nañu nu sérieusement ñaan lu and ak suñu mbokk kon li ci def moy ñu bàyyi lepp ci loxol yalla yalla mi may ndam may ma ndam ma ñibi quoi. combat bi moy c'est fermeture saison manam lo si ba. wa comme euh, comme man dama ko japp comme yeneen ko yi passé rek parce que man xamewuma saison bu tejj ak saison bu tëjul parce que man chaque jour dama entraîné xam nga kon euh, li moy sama liguey chaque jour dama ci nek quoi. mais noo préparé wàllu xeex ak wàllu ak wàllu bëre. waaw lu lamb ji laaj rek dinañ ko def préparé nañ lépp quoi préparé nañ bëre préparé nañ xeex. waxtaan na Tafa Gueye ndeysaan Tafa Gueye te danan waxal ak Quench Quench Tafa Gueye ndaanaan la Quench Tafa Gueye Quench Tafa Gueye ngay bëri ñoom ñaar ndeysaan l'expérience et la Tafa Gueye Quench jël na Tafa Gueye Quench jël la Tafa Gueye mbaa la la buddi la la la eh way no samba l'expérience la jeunesse fait la différence la jeunesse fait la différence ndeysaan la jeunesse a bâti l'expérience la jeunesse a bâti l'expérience ndeysaan Tafa Gueye ngok ma ngay bañ oh ay ay abdul Aziz kay la yo Demba Gueye ma way waaye Abdoul Aziz Gueye Paco Jackson Thiam ak bëgg Serigne Saliou Mbacké yaa doy loo borom xel kom jaago Paco Jackson Thiam waaw waaw Paco Torodo Paco Torodo waaw waaw Jackson Torodo ay lay lay woo yaay jàmbaar Abdul Aziz soo oh, jàmbaar lig ni ko lay numéro deux yaa am jom lool lig lay bege tey la samba yaa ndengan jaay wuy bay demba lay woo sañ sengi biram gay kele yaayu awa oh, jaaj Mali bay manga jaxeeri bay manga waaw Pape Mayel Diop la yoo ana garaaja fulaan daanaan jaar doomi garmi ga yóbbi am na boroobe commencé quelque chose il est en train de s'accomplir, mais il n'est pas encore wonnu Madame, wow, am na en mu il a mangé un fos waaw un corne il a ma nga taxaw ci birig ba am lu muy sangoo waaye limousine moom it ndeysaan ña ngay am ay bidiir yuñ koy tuur a ngay bàgg Cobra delluwaat na ci cumikaay la ndeysaan moom it dem Cobra këppoo ah. lu war a mat ah lu mu si masiba xanaa loolu pour nga pour pour couper ñi saf la comprendre ngoog lu mu si ne ngoog lu mu si ay saaku la indi comprendre indi ay saaku ndeysaan ma ngay lax sa loxo la ah lu mu si bari na ay fos ndeysaan comprendre lu mu si ne ña ngay préparé wu ci diiw ba ndeysaan Cobra ma ngay wër lang ma ngay diri amna lu muy diri pour toj gàllaaj lolo lolé manam pour toj ay wax la wax wax moy fo xamanteni nit dafa jaar ba jall waw limousine ma ngay am fas gu muy diri ndaysan fas googu waw tek nako won nako waye Cobra xoolu ko ndeysaan. Cobra tooñ na nen le monsieur Cobra ndeysaan ñaari xale yu nekk si yoon ñoom ñaari ndeysaan ñaari ñaari ñaari ñaari booy yu nekk si yoon ñaari ndaanaan ndeysaan Cobra sànni na dóor na limousine ndeysaan ñoom ñaar dañoo neexoon ñaari njool la Cobra ak limousine ña ngay xeex ña xeex limousine ak Cobra laay laxay la laa daje nañu ñoom ñaar eh waay ñoom ñaar jàppante nañ ndeysaan ñoom ñaar ñaari njool ñoom ñaar dañoo neexoo ak limousine limousine ñu tor Cobra koy fàqat eh waay ndaw Samba Cobra fàqat na limousine nee na ko xam-xam la ak doole nee na entraîneur bi ñëwal Cobra fàqat na limousine la ilaha illallah te teg saison bi loo ko gisee. ah saison bi neex na trop quoi. Euh, saison bi lu neex la mbër yi def nañu effort bëri nañu saison bi daal presque amul benn problème tout se passe bien. yaakaar naa CNG amu ci benn problème. waaw CNG dafa war a defar ba ba nga xam ni dafa leer nañ dafa leer nañ ni seetu. mbokk bi ñu ngi maa lay fay. kii nag photographe la mbokk yi ban problème nga am comme làmb ji day tëj tey nan nga ko gisee ci li ban saison bi mu béeg léegi ban problème nga ma sa am ci photographe. non pratiquement amuñu benn problème euh, def nañ liggéey bi euh, liggéey bu rafet. Euh, mais saison ren bi tamit euh, ubbeeku na ci lamb ci mbër yi parce que bi Bombardier daanee euh, ki nga xamné ne modulo Modou Lo tax lamb ji ubbeekuwaat dewen ay combat yu neex day am parce que fimné ni gaay nga commencé dina diw ak diw ak diw ak diw ça veut dire que lamb fi ni dafa gëna a mais ñun en tant que photographe franchement parler aw ma benn problème actuellement ci lamb ji ñu ngi def suñu liggéey normal quoi. vraiment saison bi tëj gi neex na trop parce que bo dee xol mardi mercredi jeudi vendredi samedi yëpp tay am na lamb kon loolu moo lay wan ne mbëri chaque jour mën nañu liggéey te lii bokk na ci lii développé làmb bokk na ci yokk làmb ku nekk boo xëyee da ngay dem sa bureau mbaa nga dem sa atelier mbaa ñu dem suñuy organe de presse liggéey kon te mbëri nañ leen di may chance chaque jour ñuy liggéey lii tey doon na saison bi daal vraiment doon na saison boo xam ni man vraiment gis naa ni positif positif bi mooy combat yi bëri nañu boo gisuma yenn violence yi wàññeeku na tey wax dëgg yàlla daal gis nañu xale yi bëri nañ ci saison bii bëri nañu lool bu déwénee yàlla na gën a yokk te yàlla doole jàmm ci réew mi ndaxte lii yëpp jàmm doon ko waral bu fi jàmm amul loolu yëpp duñ ko tal kon yàlla na yàlla dolli jàmm alaaj Lamine ñu ni lay nuyu maa ngi lay fay bas exception bi noo ko gisee sant yàlla bu baax ubbi nañ ko ci alhamdulilahi rabi ah, bisimilahi rahmaani rahim tëj nañ ko ci alhamdulilahi rabi alamin ah, lamb ji neex na am nay combat yu neex yu fi am tubarkalla ah, liñ doon xeex muy violence wàññeeku na bu baax a baax loolu nag ñu ci félicité président Alioune Sarr ak waa CNG yëpp di ci félicité groupe baax groupe baax mooy ñi am ñoo dajale fan si club yi ñoom itam vraiment dëgg-dëgg liggéey nañ liggéey bu rëy Euh, ci arène bi pour violence bu mun wàññeeku ndax ñun amuñu lu dul làmb mooy suñu sport mbër yi itam ñu leen di ndokkeel di leen di leen encouragé di leen wax ni làmb bu ñu bëggee mu dox ñoom itam nañu ëpp seen loxo wàññi seen i kase ndax promoteurs yi ñu ngi wàññeeku euh, tubaarkala ji nga làmb ji ni mu mel tey te leer na ma ni promoteur bi def na ci xaalis loolu tamit baaxul di tëgg di perte baaxul kon mbër yi nañu seetaat seen bopp xam ni képp kuy tëgg ci lamb ak lepp lu way wax ci lamb ñom rek lay jappalé ndax lamb ñom bénéfice buñ ci am kenn amuko ci. Forza ak Super Étoile. ñu ngi lay ñaar arriba yi waxa Forza. Super Étoile Forza. Forza a bëgg dem. Super Étoile Forza ñu ngi lay ñaar. Forza spiritual spiritual ak Forza ñi ngi do ñom ñaar da tey kenn songol ñom ñaar kenn da ndeysaan songo nañ fi def nañ fi daje bu karaw ñom ñaar spiritual ak Forza ñi ngi do ñom ñaar mon Forza sànni na Berat Warek Forza Forza Spiritual Spiritual Forza Forza Spiritual Spiritual ak Forza ini ngi leetoo ñoom ñaar Forza sànni Forza sànni na ñi xeex ñoom ñaar Spiritual ak Forza ñi xeex Forza sànni na Forza am koy karn Foussane koy kar daje nañ ñoom ñaar daje nañu daje nañu daje nañu daje nañu daje nañu mbaa daje nañu daje nañu ñoom ñaar mbaa kaaw du am mbaa kaaw du am mbaa kaaw du am mbaa kaaw du am mbaa kaaw du am mbaa kaaw du am lay la la eh, ñaar jàppante nañ eh, Forza Super Étoile am na lu xew loxo ba damm na loxo ba damm na loxo ba damm na loxo. Arbitre baa ngi am na lu ko arbitre bi di defal. lu xew loxo ba daa dama wala ndeysaan damb lu ne xaj na si ndeysaan damb xaj na si fa xaj xaj na si ndeysaan mais xoolal kii ndeysaan su fekkee wàllu forza am na médecin baa ngi koy xool médecin baa nga baat loxo ba daa dem oh ndeysaan baat loxo baa dem ndeysaan ñu ngi jëm si médecin ba ñor ndeysaan ña ngi koy faj waaw oh. oh, waaw loxo ba loxo ba la. blessure am na gaa mais jël la am na parce que ñun ñoo daan dañu bind recours parce que xam nañ li ñu règlement may. kon moom moo jiitu Super Étoile daan dañu bind recours. lan ngeen di wax waaw donte blessure am na nag dañuy faji suñu plaie mais xam nañ li ñu règlement may. dañu bind recours. bon en fait euh, lamb toujours nee mujjee kii day daan ñu ne kii daanul kii moo daanul kii daan ñu ne kii moo daanul mais ils ont trouvé que ne Forza ah, jox nañ ko victoire bi par par. par mbot ko donc euh, on a rien à dire à part euh, constater dégâts man ce qui me fait mal mooy mbër bi gañu kudd bi moo génn donc léegi ku yàlla victoire yu mel noonu li ci gën gën bo moy dem yobou ko fakk la santé de l'unité d'abord victoire chaque fois mën nga am. saison bi noko gissé wa waa ko gissé moy santat yalla rek mom mi nu may ñu ubbi ak bismillahir rahmanir rahim tay ñu tej ak alhamdulilahi rabbil alamin di jéggulu rek bu dee sunu kàddu wala sunu jëf mës naa gaañ ku mu ci doon ñu ngi ciy jéggulu di ñaan mu doon kon njeexitalu saison bu ànd ak jàmm ak dal mais ñu waajalaat saison bi li nga xam ne ay gàkk-gàkk la li nga xam ne ay lënt-lënt la ñu def ci jàngat jeex ko wattu li ni mel ngir beneen yoon xool liy njariñ ñu waajal bu ñu ñëwaatee jëfe ko ñu naan alhamdulilahi rabil alamin ndax bañ koy tàmbali coow li bari woon na lool ñëpp ne woon nañu ne lamb ji du dem tey jii defe naa ne saison bi bokk na ci saison yi gën a neex ci saison yi nga xam ne euh, CNG officier na ko loolu yëpp li ko waral mooy làmb dafa am tànk kanam mais amul tànk ginnaaw te loolu ma ñee ko fi ñaanoon. xanaa sant yàlla rek ndax boo ñaanee tàmbali ci bisimilahi rahmaani rahim jeexal ak alhamdulilahi rabil alamin sant yàlla rek a ciy des. tey nag kenn ku ne xam na ne bés bi ci la saison bi di tëj lig ñu ko lay ànd ak euh, euh, groupe Futurs Médias fas yéene yaakaar naa lu am solo la. làmb nag dañuy ñaanal CNG gàcce ngaalaama ñoom ndax su làmb yegsee fii ñooma kon tey suñu toogee ba wëlbatiku saison bi war a tëj ñu war a dellu nag sant suñu borom tabaaraka wa taala baax du nuyu waa SCS gépp nag sant yàlla bu baax bañ yàlla maye ñu fekkee saison bi jeexale ko ci jàmm salaam ak ki nga xamante ne nii moom mooy groupe Futurs Médias di ko tëj mais ñu ñaan yàlla nag ñu nopp lu ci jàmm ba saison bi ubbiwaat ci jàmm salaam mbër yi noppalu ko respecté seen ay di la sant bu baax nag di ndax gis nañ liggéey bu. y' a plus de positif que de négatif waaw li ñuy gis positif moo sëb négatif bi tuuti la ndax lan ndax nit mëtul ndax li ñuy wax liggéeyu nit il faut mu am lu des nit mëtul waaw côté positif bi moo gën moo ëpp de loin côté négatif bi. bon combat yi neexoon na saison bi neexoon na di wax ni novembre ak euh, bi nga xamante ne décembre bu 2015 bi jeex yàlla na promoteur yi jël ci ay tag bien ba ñu mën a dugaat ci lamb ji rapidement saison bi daal duñ ci mën wax mooy neexoon na trop quoi. ñii ñooy njabootu lamb ñii ñooy suqali lamb ñii ñooy dundal lamb mbokk yi saison bi tëj incha allah yal nañ ci yàlla yóbboo ak jàmm saison bu ubbiwaat. ñu am jàmm kon xam naa ni bu soobee yàlla yonent bi dinañ delluwaat ci combat yi après ñëwaat Modou ñu ngi lay nuyu may <laughs> ñu ngi ci maanaam tëccëg làmb gi ci wàllu CNG seen xol sedd na ci maanaam ni ci doxalin non violence am sono luñ leen ak yu mel noonu daal waaw non violence ba ci combat Siteu ak Zarko ak euh, place du souvenir face à face loolu effectivement làmb ji ba mu ba commencé ba ba muy àgg ca yooya amuñu woon lenn lu ñuy jàmbat ci wàllu violence waaye malheureusement combat Siteu ak Zarko ak face à face su TNT bi gàkkal na mbir mi waaw mais bu dul loolu wax dëgg yàlla jàmm rek a xewoon. mi euh, maanaam mën nañoo wax euh, lépp baax na daal. déedéet lépp baaxul li baax. ba ba ñu àgg si euh, euh, combat Siteu ak Zarko la ak euh, face à face su TNT bi la ko jiitu yëpp baax na ah depuis loolu itam pour le moment gisaguñu ay jafe-jafe waaye lépp baax na man du ma ko wax. te teg saison bi. waaw sant yàlla rek comme biñ ko dooree si bisimilah mu jeex si alhamdulilah di ndokkeel promoteur yëpp ndax làmb metti na méttiwaay boo xam ne. war nañ leen jàppale di ko yóbbal di la yóbbante nag ci président nan jàppale jeunes promoteurs yi événement boo fi gis ñoom la te kenn du leen jàppale nan leen di jàppale di wax euh, sponsors yi ñu leen di jàppale amuñu leneen commencé nañ ci jàmm nag jeex na ci jàmm alhamdulilah ndax làmb moo baaxoo coow di ndokkeel CNG di ndokkeel mbëri di jaajëfal promoteur yëpp di ñaan yàlla déwén ñu ñëwaat ci jàmm rek liggéey liggéey bu rafet di wax am na ñoo xam ne nag dañu teg làmb bët. benn coow bu ndaw rek ñu yenn ko di ci bind lu ne pour yàqal làmb na waa làmb xam loolu loolu euh, benn message la mooy jàllal rek yàlla na ñëwaat fii ci jàmm si kàttanu yàlla génn si alhamdulilah rabbil alamin ñuy jox rendez-vous ñëpp incha allah saison 2016 2015 2016 làmb ak làmb ñeneen waaw sant yàlla sport boo gis dana am yëngatu gis gisuñu si làmb di violence te loolu sant yàlla la am na sport yu ëpp violence làmb soo xoolee a ngi bëre si si jàmm alhamdulilah jagleen jag yi jubub ban man ma xartum te la sama stade Demba Diop mu tombeeg saison bi di tëj ci diggante Thiatou Boy Bambara ak nga xam ne mooy Modou Anta bu Thiès Modou Anta koy làmb parce que yaakaar naa ni tànk yi daal di tax Modou Anta Thiatou Boy Bambara Birima ndeysaan Thiat caat ak Modou Anta arbitre baa lamb caat mi ngi lamb Modou Anta ma ngi koy niinut caat arbitre baa ngi ñoom ñaar mi ngi wax li lamb nangoor yi bañ nee leen kàddaa bi jël la kuñ mu daanu jël la kuñ suur sa bopp jël la ku too mi ngi leen wax règlement yam arbitre baa ngi wax ak ñoom arbitre baa ngi wax ak Thiatou Mour Anta nee nañ ku génn saako avertissement aw ma si xarit aw ma si àndandoo nee na lu règlement bi joxe dama koy wax arbitre baa ngi wax ak ñoom ñaar nee na leen règlement bi lu mu dama koy arbitre baa ngi laaj ay zizam laaj na ziz laaj na Mour Anta laaj na Thiat neen lañ pare nañ mbokk yi arbitre bi sifflé na Thiatou Mour Anta tey jii di vendredi 31 juillet 2015 stade Demba Diop Modou Anta suñ côté càmmoñ Thiat suñ côté ndeyjoor ñom ñaar ku ne may na sa morom distance ñi ngi leto ñom ñaar chat ak Modou Anta Thiat moo ñu woon Modou mo moo ñu woon ginnaaw Thiat ñu woon a kanam Thiat ambulance mu jey beurel ambulance bi Thiès ah Modou Anta moo ñuy bëreel ñor fi fii eh, stade Demba job ñi ngi leto ñom ñaar Modou Anta chat Thiat ak Modou Anta ñu leto leetoo ñoom ñaar Modou Anta Thiat Thiat ak Modou Anta ñu ngi leetoo ñaar Modou Anta Thiat Thiat ak Modou Anta Modou Anta Thiat ñu ngi leetoo ñaar ñu ngi wër wër loo ñaar ñu ngi wër ñaar Modou Anta leto ndaysan kenn soxagul sa morom si ñom ñaar mo Anta ak Thiat ñoom ñaar ñi ngi leetoo ndeysaan Thiat suñu côté ndeyjoor Modou Anta suñu Thiat suñu côté suñu côté càmmoñ Modou Anta suñu côté jor ñi ngi leto ñom ñaar mo Anta ak Thiat ñaari ndama ndaysan Thiat Thiat bu Boy Bambara lamb ji ko bi bu ko daane ah dina ko dina ko yóbbu fu sori ci Thiat si victoire la jógee Modou Anta jóge si defet ñi ngi leto ñom ñaar mo Anta ak Thiat Mor Anta ak Thiat kenn kenn soogagul sa morom kenn dóoragul sama morom ñi ngi damatay baram ñom ñaar Mor Anta mo Anta sànni na Mor Anta sànni na mën na Thiat fayu na Mor Anta ak Thiat bu boy bambara ñi ngi dammatee baaraam ñaar Thiat ak Mor Anta Thiat ak mo Anta ñu ñi ñu ngi ñaar caat sànni na si caat ak Moranta ñu ngi leetoo ñoom ñaar Moranta ak caat ña ngay damantee baaraam ñoom ñaar ña ngay damantee baaraam ñoom ñaar caat Moranta jàppante nañ jàppante nañ ñoom ñaar Moranta ak caat caat ñu woon ginnaaw Moranta moo ñëwoon kanam ñoom ñaar jàppante nañ asan caat si caat ak Moranta caat ak Moranta ñoom ñaar jàppante nañ caat ñu woon ginnaaw Moranta ñu woon kanam ñom ñaar jàppante nañ caata ak Modou Anta Modou Anta jàpp ñay xex ñom ñaar ñay xex ñom ñaar Modou Anta ak caat Modou Anta ak caat Modou Anta ak caat Modou Anta ak Modou Anta nañ ñaar dajé nañu dajé nañu daje nañu ñoom ñaar moo daan ak jàpp jàppante na moo daan ak caat ñoom ñaar jàppante nañ caat daan na ah am lu xew am lu xew am lu xew daan na ah caat daan may sant yàlla julli ci yonent bi sant sumay ñaari waay bu baax ndax suma xol dafa sedd bu baax. lu ko seddal. li ko seddal mooy waa Thiès dañoo booloo topp sama ginnaaw suma mag yi ak suma rakk yi suma mbokki mbëri yëpp non nan suma mbokki mbëri yëpp sama mag yi ak sama rakk yi ñëpp booloo topp sama ginnaaw mais gis caat di bëre ak yow di xeex si nga ni tekk di ko déglu loolu dan ni ma dalay song taxawal xaar ko boo xaaree moom ma déglu ko xaar ko mu ñëw ma bëre daan ko jërëjëf mbokku téléspectateurs yi dañuy santaat yàlla di jur ci Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi gis ngeen lii fi am muy ci diggante ki nga xam ne muy Modou Anta ak caat bu booy bambara Modou Anta tey yaakaar naa ne ndam Cees lay fanaani jëmul ñaar tali ñu di ko maanaam encouragé ki nga xam ne mooy caat bu booy bambara di ñaan yàlla defal ko beneen ndam ki nga xam ne muy Modou Anta ndam li yàlla na ko jik mbokk yi muy combat de la lutte des darnielle combats yoo xamante ni bi moo mujj ci saison bi kon ci fermeture saison bi lañ nekk mbokk yi ñu jéggulu ñëpp de bal ñëpp ak di balu ñëpp ak di ñaan yàlla mi nu mbokk bind yàlla nu yàlla bokk jégal ci barke yonent bi mbokk yi dañuy wax ni LCS la scène sénégalaise caam dogo ak jëll bi comme fi masaan wax loo xam ne dérangé na la ak sunu équipe bi nga xam ne ñooy ànd ñu ngi jéggulu di ñaan yàlla bokk nu jégal ci barke yonent bi mbokk yi maa ngi jégal ñëpp ñama ñëpp jégal bu fekkente ne bi dafa am benn débordement muy mbër wala muy promoteur wala képp kuy téléspectateur rek maa ngi lay jégalu lépp loo xamante ne bi dañ ko def ci saison bi mbokk yi ñuy ziar di gërëm ndax nag damay wax ni boo toogee foo war a gërëm boo gërëmul rek wax dëgg yàlla bu ñuy liminoon noonu mën na a caa boole ñuy gërëm docteur Malick seen nekk ci amoo di docteur bi Pikine ñëpp di ko yàlla baaxal ñu dénk ko nag jigéen ju baax. joo xam ni ci dëgg-dëgg muy madame kini sen di ñaan yàlla guddal fanam ndax damay wax toujours ni laay ba madame Kine Sène ku ko woy rek wëndeelu ndax mooy waalo mooy tafsir Maba Jaxu Ba mooy Saalum mooy tubaarkàlla daal ci réew rek ah ñuy gërëm sunu xarit sunu soppe muy Burama ñaan nekk ci Kër saar mbokk yi ñuy gërëm ku baax sunu soppe sunu xarit di sëtu Seydina Mohamed sallallahu alayhi mooy kan Mouhamadul Ali Aydara di shérif di sëtu yonent bi. ma nga ca jàkk ya ma nga ca jumaa ya ma nga ca daara ya tubaarkàlla macha allah ma nga ca dimbilee kooku mooy kan surtout yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Mamadou Xaali Aydara di nit ku yàlla baaxal di ñaan yàlla guddal fanam Chérif ñaanal Sénégal waaye Chérif ñaanal Afrique waaye Chérif ñaanal monde bi ndax kat ci dëgg-dëgg Seydina Mohamed sa maam ah mooy jàlle gaañi bis penc yàlla na yeex Chérif jërë ngeen jëf gërëm. monsieur le maire Nelson Mandala muy euh, ki nga xamni ne Moussa Bambeng di ñaan Yalla guddal fanam di gërëm maire Papis Diop Momar Soxna maire Tivaouane Paul Niag di ñaan Yalla guddal fanam mbokk di gërëm Aji Diop nga xamni ni ci deug deug damay wax ni mais Delam Kondak kondaak lati Kondak mu jóge sembam ni Dakarou di def teranga der rek ak ko ñor Aji Diop Yalla Yalla guddal fanam grand commerçant nek ci Touba Sandaga noo koy ziar bu baakha a baax ak ki nga xamni moy mbokk yi di gërëm ñëpp di sant ñëpp ñi nu àndaloon ci équipe bi nga xamante ni bii ci dëgg-dëgg mooy équipe wu saison bi mooy xam ngeen ko mooy faral di lépp luy leer mu génn ko xam ngeen ko moom damay wax ni rek ci seet la yor filme jëratul caméra muy Ndiogu Sarr ndeysaan Ndiogu Sarr tàppalappe ak Café Touba ah di ko gërëm di ko ñaanal yàlla yàlla guddal fanam ndax xale bu yaru la bu man euh, bu man limi def la machallah waye ka nek ci montage ba nak moy Mouhamadou Mansour Ndiaye Alboury Birame Penda Ndiémé yal yalla yàlla guddal fanam lépp lu sel set rek ba nit ñi man ko tek Mansour moko le jeune griot Pape Birima cham Dogo gis ngeen ci reporter bi waye ñuy jale nak ki nga xamni moy mooy papay Ndey mad ci turu directeur général mi ngi koy jale mbokam yépp papam dafa genn aduna ñi ngi koy ñaanal fi mu jóge fa mu jëm yalla nako muy Ndeye Mad xam ngeen ko ci émission yi neex yi muy def ci LCS la scène sénégalaise ni ma daal nang nga ko jaale na ma ko jaaleel mbokkam yëpp jaaleel ma ko waa Yoof jaaleel ma ko képp koo xam ne rek yaa ngi sant jéen wala nga bokk ci xeetu lébu Sénégal bokk DG nee na mi ngi leen di jaal kooku nga xam ne mooy agent euh, bàyyam génn àdduna muy Ndeye Mad ñu ngi koy jaali ñëpp mbokk yi di gërëm ñëpp di sant ñëpp di baloo ak ñëpp di ñaan LCS yal na yàlla tàppee xol yi mu doon benn ci barke yonent bi Yeah.